namm nit ku ñuul rawatina làkk wolof bi nga xam ne moom la fi bàyyi woon ndax wax na ne Gabon day bañ ma fa yóbbee damaa mel ne ab néew bu ay bokkam gas bàmmeel ba mu xóot ne ko ca xër ne warañ wan ko ginnaaw ne waaye ba ma ne faa jàng as diir kuñ sant lum nar a lànk ca waa réew ma daraan su ma ko defee su ma ko naree def yàlla na ma yàllay Gabon ji te mooy nun foofu la wexee ne surtout bi ha kas samsi damaa mujj mel ne ab jant bi seigne modlo Lo Dagana dikke ak fimu jaar comme ni ko Abo waxe ba egg si moom bimu mu ko nuyo dané ko Modou Ngoy bobu Modou Ngoy lañ ko daan wax moy turu sanam mom lañ ko tuddé mamam Modou Ngoy mo ne ko mo mu ko ndaxam mo sa pas pass bi reyna Modou Ngoy mo ne ko mo mu ko ana no def ba egg si mu tambalé lim mo ne ko dara matuma ci wax xalwa bu metti bima jankontel saytu sa yoni wi dong ko sababoon ñu nek fofu nak ci nekkin wo xamne ne lo xamne seigne ne Touba doomu adama mo koy defal seigne Modou Lo Dagana di ko defal bu ne dama ne seigne Modou Lo Dagana moo naan naam lay wax ne la dafa namoon lak wolof ba deg na bis ñaar nit ñuy xulo di wax wolof ci Gabon waye dafa mel ne ku randu ci ba tok fi seen wet ngir nam wolof gi mu nam wolof te ñooñu dañ doon xulo waaw ah, bi mu gisee seigne Modou Lo Dagana nak ne ko Modou ngay mu ne ko mbacke mu ne ko xam nga bima ma naka la melone ci jaam ña ma fa nekkaloon mu ne ko déedéet mu ne ko damaa meloon ne am sàq moo xam ne des koo rabbu ba mu rafet aw nit ak ko ak seeni jumtukaay bëgg lu nu xéwloo yaakaar ko ci sàq dara nekku fa ne ko Modou Ngoy mu ne ko Mbàkke Modou Ngoy la doon wax bi mu fa yàggee mu bàyyi Modou Ngoy ji di ko wax Ahmadou ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko xam nga sàq ma nu mu mel léegi mu ne ko déedéet mu ne ko sàq ma fees na dell ne ko aw nag wuréer ak njabootam dem ci Manding mu yaatu te bari ay ñax di lekk ca ñax ma ba regg ba ay battam fees batt mooy ay ween mu tëdd di dallu ak njabootam kenn ca ñoom di defi pexe ba fekk ko fa ana nu muy def sëñ ma loola gan ne ko mbakke xanaa nàmp ba regg mu ne ko fii nag yaa ñu fi njëkk fekk ne ko Modou Ngoy mu ne ko mbàkke mu ne ko bi ma amee li ma doon wut ci saa borom mat ki ma bëggoon a mat sëkk doon ki ma bëggoon a doon yow yaay taalibe bi njëkk a jébbalu ci man bu bindal ci loxoom ne awwalu man aslama ni aadama géey ki njëkk a jébbalu ci man ci ba mu wootee Mbàkke Kajoor euh, sëñ aadama géey la waaye bi ma matee ki ma bëggoon a mat doon ki ma bëggoon a doon yow yaay taalibi bi njëkk a jébbalu ci man te loolu moo ko waxal boppam nafaani naafiu fii limbar wali bi maa bihi yaxbitu ni kullu wali yàlla defal na ma ci limbar wali gi ma nekk nii loo xam ne wali yu yëpp dañu ma ci ñee barra anillahu la daa konaakiri min kulli jaanibin ilal manakiri ci géej gi fu mu egg rek bayit ba fay wax mu ne ko bi ma matee ki ma bëggoon a mat doon ki ma bëggoon a doon yow yaay ki njëkk a jébbalu ci man mu ne ko mbàkki lépp dañ koy lëm ba ëllëg am bis mu xëy comme ni ko suñu aboo waxee bi mu sëñ ma loo dagana abbee madame Tourpin ab gopp yaatal foofu ba mu yaatu sëñ bi daa génn na ko ahmadou mu ne ko mbàkke mu ko xanaa li yaa ko doon def mu ne ko mbàkke noo ko doon jéem sëñ tubaa tekk ba yàgg mu ne ko ahmadou mu ne ko mbàkke mu ne ko yàlla na la yàlla defal nangam te xam nga sëñ Tuubaa wajaal mooy defal fi lu am lay jëfee diggante digganteem ak boromam Modou Ngoy Amadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko yàlla na la yàlla defal nangam yàlla na la yàlla defal nangam yàlla na la yàlla defal nangam ba sëñ ba loo da nga daanu ndax jël la ko yomboon ndax bi mu gisee sëñ sëñ Tuubaa nee na sëñ Moussa Ka nee na bisub keroog nee na keroog bég na fa mbég moo xam ne mënee su ko xibaar bi dooni may ni seet Seex loo Lo na bég na bay jooy mu ne ko yal na la yàlla defal nangam yal na la yàlla defal nangam Ahmadou eh, mu ne ko mbak mu ko ndaxam mos fi ma nek musa ma fi musa na meuna jugge rek lay bi da bàcc xam seigne touba dafa tumuranke won comme nim ko waxe ba yahtuhu fil bahri tahta sajara wal bahru musjidun hawli fajara Mangi ngi jaayanteeg sa borom tok ci taatu garab ah, géej la jakar lol ay rab di dusu mën ma fek ngir lor ma ta lol lañ ci bëgg ay katchor dong ñu ma wër buñuy tux dañ koy xër tux mi buñuy dañ koy dañ bu ñuy tux dañ koy sëñ sëñ Moussa Ka nee na duur ma mbay mës naa dikkal sëriñ bi sotti comme ndox mu def sa beeg sàngara buusu comme tux Cheikh Bamba daal di woolu siidi maabu nekk wutal ma ndox mu laab ak saabu mooy tukulóor ba daa commandé poste ba Bamba taxoon ba faatuwul ca piste ba mu nekk foofa ak moom bu nee dama ne comme ni ma ko waxee sëñ Modou Lo Dagana bu sëñ Tuubaa nee dama ne moom moo koy moom moom moom moom mën a naam ba yag seigne mu loo dagana seigne seigne touba ne ko ahmadou mu ne ko mbàkke mu ne ko ana numay def ba gis cheikh and sama rakja ko xam nga seigne touba namoon na namoon na nit ñi seigne mu loo dagana ci passeport ne ko yow mbàkke bo soxla won gouverneur sax ma indi lako fi wa te booba buñu gisee touba dañuy daw seigne touba neen wa min humu man man irra an nasrani yahsibuhu min malaikatu rahmani nit ñi ragalon nañ touba buñ ko gisee dañuy làqatu japp ne malaika lañu gis mom mu ne ko gouverneur boko soxla won ma indi lako fi sëñ tubaa jox ko ndigal mu jël si sëñ sëñ maam si Anta te diggante Gabon sëñ Abo wax na ne mi ngi génne këram talaata ji nit fan ak juróom-ñaar bi mu génnee ci weeru Saxbaan la jekki ak sëñ Tuubaa la ñu jekki ñoom ñaar diggante Gabon ak Sénégal booba téeméer ak juróom-ñeent fukk moo ko daan paas waaye bato bi ñaar fukki fan la ko daan daw bato bi ñaar fukki fan la ko daan daw muy dox di yéeg di dox di yéeg ba wàcc sëñ Tuubaa yebal ko nag mu jël si Seex waaye moom am gu mu am tawféex ci sëñ Tuubaa moo tax bi muy jël si ant dafa duy fanweeri seeta lay ndox bàyyil ko fa sëñ tubaa ngir diggante bi muy dem ak ñëw xayma na ba xam ne sëñ tubaa dafi soxla ndox te loolu defal ko sëñ tubaa la xawaytu ma xawaahu saabiquuna wa jaani xawmun murafiquuna li gaa ñi fi jiitu ñëpp amoon naa ko dolli si ñu mel ne sëñ Modou Lo Dagana sëñ Adama Gueye sëñ Massamba Diop Sam ak ñeneen léegi mu duy fanweeri seeta lay ndox dem bàyyi ko fa ngir sëñ bi du soxla ndox dem jël si maam jaaraat fa mu jaaroon fa mu jaaroon lam doon jànkonteel ci ay coono mu waat loolu ak coono ba ci Sénégal maam Cheikh Anta wuyul sa mag ju ja ñu ànd sëñ Moussa Ka nee na bisub keroog la Cheikh Anta gontu Cheikh Modou Ndiaye jóob la defoon ab sant mooy ki koy ki koy ki koy dimbale ci yoon wi Cheikh Modou Ndiaye Diop moom it taalibe maam Cheikh Anta bu amoon pas-pas la bu amoon taxawaay moom it mu ne Cheikh Modou Ndiaye Diop daana boot njool Anta di yéeg ca gaali géej ya mel ne jant daana ko boot di xuus ca dex yaak Maria ba yéeg ca looco ya ba jàll duniya te fekk booba nitu réewum galwaa ñooy doge li gabon di balwaa moo ñu a aboo doon wax léegi suñ Musaa Ka nee na ñooy ñooy xeeti nekke nekke yaak bangoy ña ñooy defi taati neen di yàpp nit ñi duñ so liiri ak timine kurbooya ak kurmaana ak njuuma yaak xërëm ya far saytaana ñoo ñëpp da leen a romb dem rombaat leen ñëw jaaxanka ak jalanka ak tàndanka koñaa ji ak balanta ak xasanka mu ne ñoo daa dogaan njool xante yoonu baafali te mën a ko dara dara ba file ñu daal di fekk bamba fii limbar wali ñoo maam si anta limbar wali lañ fekk suñ bamba moom laa la wax ne suñ tubaa ne nafaani naafiu fii limbar wali bi maa ni kullu wali mooy surtout bi si bi mu ñëwaatee moom maam si anta nag fekkaat suñ tubaa suñ tubaa dafa waajal maam si anta mu ñibbi waaye nag loolu lépp nag fekk na suñ tubaa tayleef ak ruwam ne dootul dellu ndax suuf si mi ngi jooy ngir ndëggulu mel ne ndëggul suñ tubaa mos faa tege xam nga sëñ sëñ sëñ Ibrahima Diop mas neen am sat aleykum bilaadul bii di bakiyatun ana laha xiratun maana laha jolofin sëñ tubaa ndëgg lu sell la mu tengoor ci ay jolof ak yooyu France ak Amérique Italie ya mu demul dañ koy ñee dañ koy ñee réew yi mu ko teg sëñ Tuubaa ne sëñ loo daga na man de fii dama fee jaayanteeg saa borom ndax sëñ Tuubaa Ndakaaru ak Tuubaa ak Mbàkke ak Njaaréem yam ci moom moom wéet jaamu boromam rek fu mu ko mën a defee moo ko gënal mu ne ko fii dafee tey la saa bakkan ngir du ma delluwaat fii laay toog sëñ Modou Lo ne ko Mbàkke bu fekkente ne génn ruu war na fee des man tayle naa saa gos ndax yow bu Mbàkke boo delluwut ci réew ma koo fa bàyyi woon bu dee dem safara te Sëñ Tuubaa wax na ci ma ne lawlal xaybatul bahriya la ahlaktuhu wa halaka su dul woon ak faddu gi ma faddu dem tukki ci géej gi liggéey liggéeyal alayhi salaatu wasalaam yéen ñëpp ku ci dee dem safara mooy suñ mu loo daga ne li mu ne ko boo dee luut ko fa bàyyi woon boo dee boo demee fekk mu dem safara mu ne ko waaye jaayante naa fii ak suuf si du ma dellu suñ mu daga ne nee na xam gi mu xam ne sëñ Touba moom fii ak Touba ak la yemale nee na ci boobu fekk tukki gi mat ndax bi mu fay dem ñaari at la fa def moom ci ñaari at yi ci la ko yebal mu jël si maam Cheikh Anta ci ñaari at yi ci lañ waaj war a ñëw waaye sëñ Touba bëggut ñëw ndax wéet ga muy wéet di jaamu yàlla foofu mu ne ko waa Modou Ngoy mu ne ko mbakke mu ne ko man fa ma réeree ak fi ma fekk ku la xamal ne ku la ku la xamal ne maa ngi fi mu ne ko Mbàkke ñàkk ab reer du tee xam la gaa yi kër buur ya ñàkk ab reer man du ma tee xam la gaa yi réere ca kër buur ya mu ne ko ndaxam moo suuf si daa neex a jaamoo yàlla ñu toog ba yàgg labbe yi ñu yebal leen ngir ñu ñëw saytu mbirum sëñ bi ndax booba jaaxle nañ ci moom sëñ Moussa Ka nee na ñu woo labbe yafaroom ngir jaaxle ñu ñëw ne delloo leen ko mbaa dun labbe ñaari weer lañu dox rom ga ñu jóge woon ak fi sëñ Touba nekk ci ay gaal la duggoon bi ñu dikkee nag li nga xam ne sëñ Touba kenn du moom fa xaysuma taqaf ilaa xakal ahad yaqaf ka min xafwikahu kulla ahad boo ragalee yàlla lépp lu dul yàlla daf lay ragal nee na sëñ muloo dagana bi gaa ñi dikkee ngir labbe ngir ngir ngir saytu mbirum sëñ tubaa wuñ ko dañoo dikk ba jub ko ne ko sëñ bi la nu soxla woon mu dikk bu ma masaana soxla sëñ tubaa day day soonu di jàng ay bayit lam yabdu mislul Moustapha Mouhamadi loolu lay jàng ak ay yeneen xasida di jàng bu yàgg sëñ tubaa ne ko kooku ku mu mu ko mën a moodu ngay mu anu ko ana loo bëgg mu ne ko la dañ maa wax ne ma ndax boobu am na ko daan garde am soxnaam nekkoon foofa diw sàngam entrepreneur bi de moo wax ne da nga am aw gan mu daal di yëkkati loxo yi ya daan na allahu akbar suñu ma loo daga na nee na keroog bi suñ tubaa yëkkatee loxom kàbbar nee na suuf si day riir muy tari alquran dënd bay riir nee bi mu sëlmalee ne ko nan jàll si nee na nan jàll si moo sar ci noppi suñ ma loo daga na jàll ca ka doon woo labbe ya ak labbe ya nee na man ma daw di dàq ka doon woo labbe ya ñuy dàq labbe ya nee na jotuñ leen labbe ya ko doon soxla woon ngi saytu mbiram dañoo daw nena ma top seen ginnaw gisuma seen melo da nga gisuma ci ñom luddul seen kurus ya ak seen ci kimi guddiya ya ñu daal di wàññi ko nee bi ñëwee mu ko Ahmadu mu ko Mbàkke mu ko te dem jox ko soxna si garde bi tubab bi madam bi mu fab ko muy wurs ak khalis bam mu jox ko bim ko ubbee khalis bi dafa fettax soxna si tubaab bi dafa doon fecc nan marabi bi du nit yalla la marabu bi du nit yalla la ko bëgg nga wax ne ko tubab ñi fi ñewon ay labbe lañ dañuy saytu mbiram ngir ko ci réew mu ñew wax ko señ ma dagana bi mu ñëwee wax ko sëñ Modou Lo Dagana sëñ Modou Lo Dagana ne ko waaw fii de dafa neexew jaamu yàlla te fa lañ fa lañ fas toog ñu waaj nag ba jekk ngir booba maslaa na ak moom di jooy ak ya ci aju pas-pasub taalibe ak ya ci aju ngir bëgg ñëpp texe ba tubaat Tuubaa d'accord ci dem ñu gaaral gaare gaare kanoor gi mooy roñ bagaas yi ak moom yóbbu leen ca bato ba ñuy roñ booba nag soldaar si ñemewuñoo laal ay bagage am ndax booba booba yàlla lañ ko daan wax sëñ Modou Lo Dagana ne léegi bagage yi kon da ngeen koy roñ ndax boobu bari na ñu ne ko ñun dañoo ñemewutal laal koo ñemewut ñooy jege ay bagages am mu ne dox naa seen digganteeg li ngeen jàppee fitna ci bagages yi moom suñu mënuloo dagana ñuy roñ di roñ di na ba mu des der bi muy jullee ak kaamil bi nee na Sëñ Tuubaa bokk ko tax bokk ko taxaw ba tey mi ngi wax suuf si ngir ñeewante te boo jàngee alxuraan yàlla nee na wa in min shay'in illaa yusabbihu bi hamdi walakin laa tafqahuuna tasbihahum mboolem lu ma bind damay sàbbaal waaye ku eggut ci dayob doon sama waaye dëgg doo ko xam nee na sëñ Modou Lo Dagana nee na ma xam ne bu ko neexee mën naa jékki-jékki ne mes kenn du xam fu mu jëm nee na ma doxee ko ginnaaw nee na ne ko fàpp boot ne ko mbàkkee comme suufus gabon moo mën a jooy ngir sa jëmm ji rawatina suuf sa nga cosaanoo te koo fa bàyyi boo demee koo fa bàyyi bu dee dem safara nee na bi ma dugalee sëñ tubaa ci gaal gi nee na tubaab bi dañ ma doon tàccu ndax booba seen ndigal jox na leen heure ba heure bi jeex te sëñ tubaa narut a dem te tubaab ba fonk ndigal ko ko yëlif nee na gaal gi deq bi su àllarba ñu jóge fa wàcc kabla bi saa àllarba alxamis sëñ bi mu tegaatee tànkam kabla bi saa tànk bi dafa dafa nuur ndax suufus beñ la mu tambali suuf def nam doon def mu réer fa sëñ Modou Lo Dagana alxamis señ musa Ka neena sax nañ fa alxamis ba alxamis da delusi si dellu te ngir melas ja ngir nëbbu cheikh Ahmadu Lo ak gaaya ca takusan mu ne jalax jalañ fa tax ya boba daf ko doon nëbbuwaat ngir suuf si sëñ Modou Lo Dagana ne ko waxat ko lam waxon ne ko Mbàkke man de ñak bu reer du ma tee la xam re la gaña reere mu ne ko modu modu ngay mu ne ko fekk ah, gaña ñi ngi indi ay ay ay pass ay ay adiyam ndax xam nga ne bi ñuy jógee Gabon sëñ Touba daggut ticket ndax daf ko wax ne ko comme que yaa fi ñëw ngir bëgg maa delloo yaa may paasal yaa may tontul gaal gi ndax man ñii duñ ma tontul gaal gi sëñ mu loo dagan dem ca capitaine ma ne ko damaa bëgg paas bu yóbbu sëñ Touba mu ne ko man fi téeméer ak juróom ñeer ñeen fukk mooy paas fii Ndakaaru waaye du ma la ci dimbalee dara bu fekkente ne kii nañ buñ desiwaatee gën koo kii incha allah muy dugg gi mu war a dugg ci gaal gi ngir ñëw ñu di wëlbatiku ci sëñ Souhaïbou Ridwan euh, yakarna deng euh, li nga xamni ni euh, Abo wax na ak sëñ fallu lan nga ñu ci jangatal ak jërëjëf ñii seetaan. Mhm. jërëjëf sëñ Abo ak sëñ Amadou Fadel. ubbi nañu buntu bu bu yaatu ci jambar ji ñu fi dajalé mhm. nga li ñu jot wax dafa fess ak jangat mhm. li li ci jitu moy Euh, dañuy wax sax ne dañ ma doon wax sax ne bu ñu waxee ba noppi ma jàngat ci pas-pas waaye li ngay dégg day li nga ciy jàngat day raw pas-pas. Mhm. day raw pas-pas ndax pas-pas mooy xaqida mooy xaqida xaqida day am ba noppi nit ki am li ñuy wax himma himma mooy la al himmatul aaliya waaw yitte ju kawe mhm. yitte ju kawe fi ne boo ko doon firi ci wolof dañu naan mooy yi baax yépp yépp yépp boo ko dajalee la ca gën nga ne ko coppet tem jaral la sa bakkan loolu mooy al immatul xaaliya waaye fi mu ne xaqida ak himma yooyu yëpp am na loo xam ne moo leen di takk bañ dëgër ngir nit ki mën a jariñoo xaqidaam wala himmaam te mooy al mahabba mahabba googu nag ci la ñuy jàngat yoonu sëñ mudloo wi ne digganteem ak sëñ Tuubaa amul kum ci yemal amul kum ci yemal tiofel gi mu sopp serigne bi moko jël bu mom moko xëcc ba eggale ko ci serigne bi lolu nak buñuy jàngat dañuy xol bu dee ahlu tasawuf ñom liñu gëna fonk ci digënté sëriñ ak moy al mahabba moy tiofel moy tiofel tiofel dañuy wax ne moy buum gi dëgër gi takk sëriñ bi ak taalibe bi moko ci may mëna may lu nekk dañuy joxe message sax ne ben sëriñ junniy taalibe mën nañ koo bokk kenn taali benn taalibe alak ci barkeb sëriñam borom moroom taalibe xam ngeen ma wax benn sëriñ junniy taalibe dañ koy bokk kon sëriñ bi moom benn la li man la man ni mu toll la toll waaye kenn ca taalibe yi mën naa wëlbatiku alak ci barkeb sëriñam moroomam taalibeem lu mu ko ëpp mahabba cofeel cofeel googu moo moo moo fi bàyyi lislaam cofeel googu mo mo mo tax sëñ Touba am li mu am ci yonent bi saa sallam soo xoolee li sëñ Modou Lo Mat Dagana def léegi sëñ Modou Lo mooy tànk ya saxaaba yi jaaroon mooy ba Màkka di làqatu ngir dem Madina di ut fu nu jaar loola képp koo gis mu buddeeku dem fekk yonent bi saa sallam wala mu jiitu yonent bi rek cofeelam moo xajatul ci xolam la leen dal ci yoon wi metti la yoo xam ba tey xalima yi ñu ngi ciy daw ci kaw téere ñu du ko bind ba tey joxagut lenn mun loolu boo doon xaqee bu doon xaqi da xaqi kese ak himma kese bu ci mahab ba eggul du mën a sotti mukk ndax nit ki li koy jaral bakkanam loolu rey na xolam ba noppi sa xol day dee ba noppi nga bëgg a tàqalikoo sa bakkan xam nga bi yonent bi saa sama wax ne mootu la anta mootu na ngeen dee dafa laaj jullit bi dee ci àdduna dee yu baree baree baree bari njëkk ñu koy tàgg ne nañ koy robi tey wala dañ koy robi suba fi ne deegu mujj gii du deegu dara soxlawuñ ko parce que loolu mooy final bi ku ci egg da ngay dem boo matalee boo matul da ngay dem waaye nag dee yi nga xam ne da nga koy dee ci kaw suuf dee googu mahabba moo koy waral boo gisee sëñ mat loolu li ngeen wax léegi ci tàmbali bi def cee wane lu lu leer ci ci ci mahabba gi ma sopp sëriñ bi su may tudd mahabba nag ci jataay bi may wax làq naa himma moom ak euh, xaqida moom moom soxlaatul wax ndax dafa am lu leen gën a kawe loo xam ne moom ma nga ca muy mahabba gis nga da ngeen wax léegi ne bi muy jógee kokki guy dafa dajale njabootam muy ay taalibeem te booba taalibe bokk na ci alal ji gën a foor ci Sénégal ndax booba mën a yilif kenn yombut koo xam ne nii jàppoo ko ci xare jëndoo ko dafa xool ba nga doy ko mu ne la jox naa la sama bopp di la xëyal di la gont loolu ku ko masaanaam am nga alal ku ko mën a bàyyi bàyyi nga lu rëy rëy waaye itam àndaale bi ko yàlla boole loon muy soxna si waaj loo na ko ne ko maa ngi seetu koo xam ne du ma dëpp mukk te gisuma ko kon wax ko wax na ko ne daanaka mën ngaa jàpp ne li ñuy wax fireekul mën ngaa jàpp ne fi mu ne nii sa borom kër ab néew la ndax bakkanam bii doo ko gisaat mukk ndare du bëtam dafa gis sëñ Tuubaa ba noppi sëñ bi xool loolu ni mu toll léegi ki bàyyi loolu wan ginnaaw adduna wan ginnaaw njabootam we waa kañ ak ak doomam xam nga yonent bi saa sallam lu mu wax ci doom dane almaal wal banuna saxiixu ruux maanaam xol boo mënoon a seet lu ci sax nga xam ne daf cee dëgër yonent bi nee na doom la ak alal léegi nag foofu ngir ma nuróo lu ko feeg soppeem ba seexul xadim ci bàyyi gi ma bàyyi alalam bàyyi doomam da ngay xool li sëñ Tuubaa naan mahab mahabati al muxtaar sayidina hubbil maghaniya wala ahlina wala wala da xam nga sëñ Tuubaa moom bi muy jug jëm ci yonent bi li sëñ mët loo ju li sëñ mët loo def la sëñ Tuubaa wax dama ne li sëñ mët loo def la sëñ Tuubaa wax sëñ Tuubaa dafa ne mahat mahabbatiyal muxtaar sayidina hubil maghaniya soppi gi ma soppi yonent bi lekk na ci sama xol fii ay doom bëggatuma ko bëggatuma alal sëñ Tuubaa da koo wax nag di jëf jëm ca sëñ mët loo moom dafa jug rek def ko wan ginnaaw léppam lu mu moomoon nga xam ne bi muy dem amul dara lu ko lew ci àddunaam lu dul jëmi boppam ci boo xoolee sëñ Tuubaa cofeelam googu bi muy dox egg na ko ci da ngay dégg am na fu muy wax naan euh, ci nuun ya am na fu mu naan wal xubb yoddu nii nii di nga xam ne day toog ba mu yàgg mu xool boppam yërëm boppam daan ne cofeel gaa ngi may lekk maam mi ngi may ngosloo ni ma bëgg yonent bi mi ngi may rey amna fo xamne xam ne sax dafa ne wala xubbu yukku wii nii gi legi egg na ci sama xol nim ci méttee dafa mel fer buñu tek ci ci sama xol bi manam bo jëlën fer bu tàng nga tek ko ci perméable ni muy moloxoo nee na bëgg yonent bi egg na ci man fofu waaw yukku wii nii léegi loolu nag tax seigne touba dadi yakamti lol ne fi mu ne sama digganteeg tubaab bi dafa tilim tilim go xamni fóotkat bu am doole ak saabu bu dëgër moo ko mën a setal di ñaan yàlla ndigal yu yonentu bi li yax tarabus maanaam ndigandiku googu mënoon def mujjoon na yàgg ci moom ba nga xam ne sëñ Tuubaa bu ngeen xoolee ci histoire li li wér mooy bi maam Cerno ñëwee ci fajaru gaaw boobu egsi Mbàkke bari taxaw mu génn ci jàkk ji war a duggaat ci kër gi ba mu dajeeg maam Cerno daf koo lëng di reetaan te pourtant xam na ne ci tumuraanke la jëm waaye da doon reetaan te li lay xamal ne jekkoon na bu yàgg-yàgg mooy biñ bi mu waree dem ba ne waratumaa duggaat ci kër gi néewul nañ ma xoolal bagage wala yére wala dàll wala téere wala xalima wala daa gii laa yóbbaale takkoon na ko ba noppi takkoon na ko ba noppi xam nga yaa ngi dégg ñoo wax ne xarajtu yooma sabti saamina asar saamina asar suñ tubaa bind ko saamina asar suñ tubaa bind ko suñ tubaa raabi asar la bind xarajtu yow ma sabti لخدمه المختار افضل البشر بيد ولو سنتو بابنا في الرابعه عشر بوكو خولي داي ملني نياري سامدي مو بن سامدي نيوات بنين با تيرسي وات مو دورا نيك سامينا عشر غيس نغا بو نديك با موي ليتر بيكو بيم نديك جوت مو تاك باغاسام ام دوغوك ديم نا داماي ديم لغي نك بيم ني داماي ديم تا امغول ديغال مو توغات باي في بيد ونونو با سامدي ديلسي با ديلسي وات دي سامينا عشر تي لاي دورا ام ديغلول مانا ديم waye xam nga kuñ ne da ngay dajje ak say noonu sa ak ñom kenn nu doxu ci te ñi ëpp katan ndax bobu du wax Sénégal Afrique Afrique wax sax dafa am ñaar yu leen momu ñu seen mënu ñu seen al français nekk seen biir di leen doomu bu nekk ci biir amul kenn ko mëna dox seen ak lor yi bobé nak la jambar nga xamné 39 ans rek la Cheikh Dagana 39 ans nañ ba bu ñuy nañ as maanaam bu ñu naan dafa amoon kattan booba ci jamono bii gone la koo xam ne sa ñeent fukki at matagul nga am cofeel goo xam ne mënatulaa téye te néewuñu la sëñ tubaa mi ngi ci ginnaaw miir bii waaye sëñ tubaa daanaka ma ngi ca ginnaaw kaw nu wala lañ lay wax ndax xamul fu mu nekk xamul yoon wa xamul fu koy jaar amul moyen yu ko fu mën a yóbbu kon dafay mel ne xeeti jafe yëpp daje woon na ci moom ngir mu jàngoonteeg moom ngir gis sëñ tubaa nga xool nag ci ak cofeel yaa wax léegi ne dafa yeew woon waaye fii ne xanaa xamoo ne ak cofeel day yéenit ak cofeel day yéenit it koo xam ci jamono bii rek nga bëgg loo mënta ñàkk da dem ba jàpp ne xel mi nga yor yoroo ko woon ndax lu nekk da ko def ngir am ci ngir jot ci li nga bëgg sëñ Mat Lo mënoon na ne sëriñ bi fa ma koy uti naa toog Sénégal ndax moom li métti lépp def na ko maçon na Euh, sëñ Moustapha sax am na fi yoo xam ne da am na foo xam ne bokk na ci muusug sëñ Modou Lo da doon jàng environnement yi maanaam bu ne cëpp ci dëkk environnement bi lay njëkkee jàng toog bàyyi nit ñi fa la distance xool leen ba xam yan nit lañ xam nangu nañ jaxasoo ba xam bëgg nañ lii ba xam bañ nañ lii mu door leen a côtoyé léegi nag su leen côtoyé ñaar lay ut muy am lu ko jàllale ak xam fa mu jëm fan la te xam nga booba duñu wax ne Sénégal Gambie Mali déedéet booba Afrique française gi yëpp benn la xibaar yi day day day day day dawandoo booba ak ni sëñ Touba te sëñ Touba yi nag da ngeen jàpp na ngeen na ngeen xam ne itam dafa jug rek siiw ndax néewuñu ko coppet ndar mu daal di egg fañ ko denc sëñ Touba Dakar gii jaar na fi ndar googu am na fi daanaka lu mat ndax dem na fa ñaar fukki fan ci weeru safar la egg ndar ñaar fukki fan ci weeru safar bisu altine toog na fa fukki fan gi des ci safar. togaat na fa weeru gàmma ba mu des ñaari fan kon daanaka ñeen fukki fan sëñ tubaa am na ko ndar ndar booba sëñ tubaa moom nett na ko boppam nee na délégation bu dee ñëw na bëgg a dox sama digganteeg tubaab bi ma ne leen gën leen sama digganteeg sama digganteeg sama borom léegi nag cofeel googu nga xam ne nag moo yóbbu woon sëriñ bi mooy cofeel gi nga xam ne sëñ mat ku ne ko woon sëñ tubaa nga ca ginnaaw kawnu nu ba dana fa egg ndax li nga xam ne moo ëpp doole moom dal na ko ba noppi te nag ak cofeel boo xoolee sëñ touba bi mu sampé yoon ba nopi te bëgg wan élément yi mu soxla waxut waxut ku ñëw rek ne dama aju ci yow waye sëñ touba dane ëllëg yowmal xiyam talib yi nga xamné dañuy tok fële man ma ñëw fekk leen fi ñu taxaw ma téye seen loxo ne yow mi dama la soxla faaw nga am ñeenti melokan moy yi mu tënk ci sifatu sadiq al murid salabu ikhtiyar waye ba ci jiitu rek la bëgg a wax mooy asidqu fii mahabbati shaykh kon nga xamne ne deug deug deug deug bala la seigne touba soxla ba am la ba di la ëlëk yowal xiyam da ngay melni seigne sëñ dagal mi mam nga xamne la ca ginnaw de yow da la koy jaral bu fekke de taxaw na da la koy jaral euh bo xolé tam ben hadith bi nga xamne ñu ñu ñu kii lay yem ci nga ñu daañ la ci moy yant bi ci hadith al yu yant bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne maa taqaraba abdi bi cheyin ahabu ilayhi min maftaratuhu alayhi sama jaam munu maa jegeen jegeen lu ma gën a neex li ma tànn ba farataal ko ci moom mu nekk ci foofa la yem nag julli juróom neex na ko woor neex na ko joxe asaka neex na ko soo ko defee ba noppi bu la neexee bu ko neexee mu nangul la fay la su ko neexut mu bàyyi la noonu waaye nag dafa am leneen lu mu jëm laa tasaalu habbi yataqarrabu ilayya bi nawaafil hatta uhibbuhu foofu nag moom amul sart xam nga xoolal xoolal farata yi dafa am fu mu ci yem لعلكم تفلحون لعلكم مويلا سو نين جامو يالا باي بغا دي من نا ام نين تخي واي نك نينا سو ديفه لوتخ ما بغ لا سوما خاسي بغ ياو دا غاي دوخ واي نيكوتو من يالا ما نيك سي بير ام دا نيو ديم با بير ليغي نيوم ييغتو نعم ني ام نان سو سيني مدلو باكو موسى جابي موسى موي ني mooy ñii lekk nit ñi nit ñi nit ñiy lekk nit loolu mooy muuse mu leer biñ ko jàppee yeew ko nga xam ne suba moo war a nekk seenub añ sëñ Madlo kan moo ko fekk soppeem ba mu doon seeti te eggagul ci moom moo ñëw ci moom jël si ko lan moo tax mu ñëw ci moom laa tasaalu abdi yataxarra ilay bi naa nawaafil hatta uhibbo lu mu ci teg fa isaa ahbabtuhu kuntu samahu la si tasmo bi wal yadduhu lati si bihi ورجلها التي يمشي بها نانا سما بدي عمدك بوما لا نك بوما لا بجي يو أموتو بول خالد سبب من يالله ما نك لو سوري سوري سوري ما يسوي نوب لو سوري سوري ما يسوي بيت لو سوري سوري ما يسوي تانك بيت يالله يو يه لسين تبا خالد سين مدلو بمن كوتك فوف منك السلام عليكم أه، سنسان يبو أه، يا كارناني جانجات بيمجو دفل أه، مبكي باي نانكو خلو باخ باخ مويلو أم سلو Euh, sëñ Mamor xam naa bu sëñ euh, Ahmadou Mbuub daanelee rek yow nga defal nu sa waaw ci programme bi lay wax waaye euh, suñ sooy bu dafa wax lu am solo bëgg moom sëñ Tuubaa daf ni nit soo koy may may ko la mu bëgg ndax loo ko mën a may bu doon ay milliards sax dana ko jeexal ci la mu bëgg ba am la mu bëgg wala la mu yor jeex li tax maam Cheikh Ibrahima Fall raw ñëpp mooy ku ne bala sëriñ bi wowe laaj la lo bëgg ma defal lako wax nga la nga bëgg sëñ bi defal lako waye mom dañu bi ñaanal ma sa bu mu di la gëna bëgg kon euh, yaakar na ni sëñ pap Touré mu baax mi nga xam ne démb rek suñu wajur ma fal fal mom la yabal ci plateau bi mi ngi and ak ñun sëñ Mamor neena na mi ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp euh, sëñ euh, li nga wax nak li nak sëñ Modou mm. li tax ñi bokk Touba ñoo taggo waxuma sax bàyyi sëñ bi waaye ñoom ci seen jëmi bopp sëñ bi dañu ñoo gis ñu tàggoo la leen tàggale dafa gën a am doole la leen boole woon te sëriñ bi dafa xas boole taalibe yi boole goo xamante ni dara lu leen mën a tàggale amut ndax sëñ bi yëpp doole lépp kon sëñ Pape yowoon ci wàllu programme bi nga xam ni mooy bis ba maanaam ñii seetaan mën a xam bis bi kañ la ak lan lan fa fas yéenee def ak ni ni ni ni mbir mi doxale Euh, boo ci ñëwee ci première partie bi deuxième partie bi nag boo ñëwee door a yeggale comme noonu lañu koy wax am na benn élément boo xam ne tamit sañ daam dencal nañu ko bu sëñ Mamor defee jàngat ba noppi ñu xool ko door a dellusiwaat ci deuxième tour bi bisimilah. barakalla sëñ Moustapha ak sëñ Mamor jërëjëf li fi roote ci ay kàddu ku ko dégg di nga xam ni euh, xam-xam rek moo fees ci ndono li fi euh, sëriñ. Euh, Mouhamadou la euh, Mouhamadou Lo Dagana Baye euh, wone itam ni ci jàngale li waral bis bi ñu koy amal muy pas-pas akuk bëgg gi nga xam ni jàmbaar jooju wone na ko fekki Seexuna Ahmadu Xadim fa mu nekk la tubaab naan bravour bravoure négation loolu ñaari mbir yooyu moom la wone ca ñaari mbir yooyu fu mu am solution dina fa am moo waral solution boobu nga xam ni moom la am ba am résultat bi in eh, fekki Seexuna Ahmadul Xadim fa mu nekk kon eh, li waral bis bi du dara lu dut eh, fii jamono toll sëtëm bii di Serigne Ousmane nga xam ni bëgg googu Serigne Modou Lo Dagana am ca suñu yaakaar jooju tey moom la bëgg maamam jooju ba tax mu ànd ak mbokkam yi yëpp bëgg nag ñu ñëpp ku di ay taalibe ak ay wëllëre ñi nekk ndakaaru ña nekk ca euh, Touba ña nekk ca Mbàkke fépp fu waayu mën a nekk incha allahu rabbi bu le 18 décembre di tombeek samedi ñun ñëpp ñu àndandoo fekk ko foofa ca Mbàkke ñu won ndaw ñi ni fi jamono toll war nañoo jàngat ci jëmm ju toll ni seriñ Ahmadou Dagana ci pas-pas ci bañ di yaafuus ci bañ lépp loo xam ni e, seen nga ko muy sa bëgg-bëgg di sa pas-pas boo ca doxee rek di nga ko ca di nga ko mën a am kon journée culturelle lañ cay lañ cay woote di journée culturelle religieuse nga xam ni comité d'organisation bu mucc ayib boo xam ni xam nañ e, e, mbir mi fu mu toll ci dayoo ñooñu àndandoo bu samdee Euh, tombeeg le 18 ñu àndandoo dem ca Mbàkke Bawal daal di mën a taxawal bis boobu ñu cay euh, rendre hommage nag euh, Serigne Bassirou Lo aale aram kooku buñ ko ci tuddee képp ku ne xam na lim lim représenté ci yoonu Murit di ca rendre hommage it soxna Njóoba ñaan wante nag mu am benn invité d'honneur boo xam ne buñ ko tuddee du jaaxal kenn ngir taxawaayam ci yoon wi muy Serigne Abdou Samad Soyibu ngir moom it bëgg gi nga xam ni bëgg na ko Cheikh na Ahmadou Bamba saa su ne buñ amee cofeel goo xam ne moom lañ ko am ci jàmbaar jii di Cheikh na euh, Cheikh Mountakha Bachir ci ñun jeunes yi war koo mën a sant ci taxawaayam ci ci ci jataay bi nga xam ne moom moom la toogal Cheikh Cheikhul Khadim saa su ne rek Serigne Serigne Abdou Samad bu euh, taxawal ñu ca ca wetam muy waajuram di ku ko jige mu mu mu mu dem ca taxaw ca man koo taxaw taxawaay bu am solo kon euh, moom buñ ne rek mooy invité d'honneur ba yaakaar naa ñun ndaw ñi ku ci nekk dina ca sawar man caa teew ngir moom itam nu bëggee saa su ne di xeeñtu mag ñu mel ni sëriñ Ahmadou Lo Dagana kon sëriñ Abdou Samad euh, délégation bu am solo dem na fa fekk ko ca Madiane euh, wax ko suñuy bëgg-bëgg wax ko ni bis bi war a taxawee moom it mu kontaan ci lool ni daa ci ànd ak yéen kon xam naa bu jël siwaatee rek ñu wax ci ñi nga xam ni ñoom lañ cay woo su ko defee ñu ànd ko ak ñoom barakallah jërëjëf sëñ Ahmadou Mbuub ci leeral bu am solo boobu ci wàllu bis bi ni muy tëddee bu ko defee bala ñoo ñëw ci élément bi rek ñëw ci deuxième tour bi euh, dañu bàyyi sëñ Mamor mi nga xam ni moom it euh, ñoom ñi nga xam ne ku ci ne jël nga kàddu wax li nga xamni ni euh, wax nga ko muy ku ci melni Dan abou mi ñëk jël kàddu nga euh da nak fi nga daan jaar la jaar rek ndax euh, yaak ci mom manam ci mom mi ginaaw ji saw sakor ci mom mi la gëna comprendre Modou Lo gi mu joggi fi dem nga fekk bi ak ñu bari nak ño xamni euh yalla jaarale na ci aw làmmiñam waye yaakaar na sëñ nek deeng li nga xamni wax nako nek nga xamni nek nako ak bi ba ci sëñ Soye bu mu bax mi ni mu jangate lolou ba indi wane bëgg lim mën a may doomu adam bi euh, lan nga nu ci waxal sëñ mamour ak it Abdou Samad mi nga xamni ni euh, kenn la ci ñun euh, te ñu tuddé ko bis bobu lolou rek lan nga nu koy bo bolé lepp lépp mamour Mamor bisimilah. jërëjëf sëñ Moustapha. Mhm. jërëjëf sëñ Abou mi jëkk wax. Mhm. ak sëriñ Fallou ak sëriñ bi mhm. ba ci sëñ Ahmadou mbou mi jangat bi ma ci am. moy dama. dégg ñu ne maam Seynabou njaay bu musaana ñëw ci kanamu sëñ Touba day tuur ay rangooñ rek day jooy boobu dégg naa sax sëriñ bi mës na ni Ibra Fall maa ngi doog a xam pëstéefam bi fi mu ko jële ndekete ci ndey ci ndeyam ji la ko jëlee waaye sëñ Touba dana ko woon soxna Seynabou bu yow mal xiyaamee boo déggee ñu lay woo ana nan nga foog ni noonu lañ lay woowee ndax assalamu alaykum wax nañ ni mustafa kan amu fa assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ngi leen di siyaare bu baax euh ñi ngi la koy delloo bu baax ku baax koku pap mbay lañ koy wax pap mbay pap mbay waaw waaw sëñ pap no nga lay nuyu bu baax di la siyaar ñu ngi leen di siyaare bu baax mhm, sëñ mamour sëñ mamour waaw ñu ngi ziar bu baax mbay ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi la koy delloo bu baax mbay di leen jox seen wàccuwaay mboolem ku ne ci plateau bi rek di rafetlu bu baax émission mhm. bi ak kaddu yu am solo yu am njariñ yi fi jot a tàbbi di ñaan mboolem li ngeen wax rek mhm. yàlla na ko sunu borom nangu amin mu fekk suñu jàmbaar ja cheikh modulo dagana mhm. may ya nga xam ni Sëriñ Tuubaa may na ko ko mu dolli ku ca ginnaaw loolu nag ñu ngi siyaare suñu la ci kër gi muy Sëriñ Xaadim Lo mu Sëriñ Cheikh Lo moom Sëriñ motloo Lo Dagana di wax ni bis bu toll nii am porté bu am solo bi mu am solo mm-hmm. ñu ciy fàttaliku suñuy jàmbaar ji Sëriñ Mat Lo Dagana mm-hmm. nga xam ni képp ku jariñu ci tuba ci ginnaaw tukki bi rek mm. war nga ko delloo njukkal mm. war nga ko sant war nga ko fàttaliku dëgg la kon bis bi bépp julit rawasina bépp murit bu ko fekkee rek man dama jàpp ni saw ñaq war na cee tàbbi mm-hmm. ngir xam ni Serigne Modou Dagana ba muy laxasaayu di dem ci tukki bii maanaam loolu Serigne Moussa ko wax rek da ci Serigne Touba moonu dal ci moom hmm. bu dul woon ak tukkeem bii wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu Serigne mën loo dagan loolu rek la ñu bañi dëgg la ñu gëm wala ñu xam leneen lu dul Serigne Touba hmm. kon nag sëñ Mamor hmm. yaa ak sëñ Moustapha ak ñi ngeen bokkal plateau bi di sëñ Fallou ak sëñ Abo ak sëñ Ahmadou ñu ngi leen di siyaare wat lu bare bare bare bari hmm. di leen feeñalal suñu kontante hmm. ak suñu mbégte di wax ni nag bis bi wax dëgg yàlla dañ ko yàkkamti woon ndax ñun murid yi nga xam ne dañoo nekk ndakaaru xam sëñ murloo dagana di ko dund ñu hmm. yàkkamti woon bis bi dëgg la kon nag ñu ci woo mbokk taalibe yépp ak mbokk jul yépp wassalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh tubaarkàlla jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Maam yaa ngi woon fa ñoo ngi koy siyaar ci dugg bu am solo boobu mhm. di ko bégee itam mhm. eh, di wax sëñ daam mu téyel ñu tuuti téléphone bi rek mhm. eh, man xam naa duma kii sax cinq minutes ndax sëñ loo daga Dagana moom yaakaar naa ne ku seet ci internet bi comme ni nga ko waxee samay waxtaan man maa wax sax te tudduma ko dëgg la parce que ñaari jasaaw sàkkuur mu am géej géej géeri ji amut boo ciy wax di tëb sëñ Modou Lo amul euh, waaye fi ma doon waxee rek mooy wax nan ni yow mal xiyaam du ñu woo nit ci turam ana ñi daan def lu baax ñi daan natt asaka ñi daan nàngam mbooloo moomu di jóg waaye soxna Seynabou Ndiaye sëñ Tuubaa na ko bu yow mal xiyaam yi boo dégg kàddu gu naan ana ndey ki xettali jaam ñi jógal xam ne yow la nuy wax waaye yow mal xiyaam fa demee bu nu déggee kàddu gu naan ana ki jëkk seeti sëñ tubaa ci géej gi sëñ Modou Lo Dagana lañ naan fu mu nekk dañ koy dañu koy wéy ne ko kaay wuyu maanaam dafa am loo xam ni ñu bari mën nañ koo bokk defandoo waaw boo nee diw da daan jàngaleel sëriñ bi mën nga ni keneen da daan jàngale mën nga ni mm. keneen nàngam mm. diw joxe na addiye da nga naan diw joxe na addiye diw mm. bay na tool da mais jóge fii dem Gabon moom mm-hmm. benn identification la kenn ko yor muy sëñ Modou Lo Dagana nga dëgg de te nag ngeen di wax nii sax kan moo ci dem Gabon ci yéen ñi man nag man man dama dem Gabon dem ba maa yomba gam ko fekki woon maanaam fi mu ne Fallou sax ci internet bi mais tey boo demoon ba Gabon dem ba maa yomba bu la neexee jëlal avion parce que jóge dem Gabon ñun ci lañ gën a jóge fi dem Libreville ca Gabon ci lañ gëna nofla yu jóge Libreville dem Mayumba 850 km kilomètres la léegi xoolal nii la ko Manding la dox ci gaaw romb Sierra Leone fanan fa gaaw kon donc semaine semaine bobu dako dox jëxal Manding la dox ci gaaw romb Sierra Leone fanan fa gaaw xëye ba sarlong ba jàlli biri bi laaj sëriñ Touba weesu arab yi dox mën a róoyo jaar grand léo wàcc grand popo c'est-à-dire grand popo il boo xamante ne ci géej gi la ne xuus na ciy dex dugg na ci looca ah te dëkk bu mu àgg li muy jëkk a préparé lan moom may yóbbu bërëb sàngam te dina fexe ba lewaayungu ba am lu ko ne foo jëm maam léeg-léeg sax làkk olof bi lay làkk rek ñu ne maara bi ñu yóbbu woon làkk wi kii di làkk dëkk boobu lañ ko jëlee woon mu naan kuy kooku loolu nga ne ci intelligent sëñ Mourlo Dagana fexe na ba nit ñi xamuñu ne sëñ Touba lay seet solu na soldaar yenn wan na loolu lépp ngir bëgg gi sëñ bi wax nañ ne am na dëkk boo xam ne ba mu fa àggee fexe na ba xam seen làkk li nga ne li kii ne culture bi lay jëkk a jàng mu gis ne euh, wa watu jubbu maanaam bi ñu watoo sax dafa watu ni ñuy watoo parce que mag ñi mag ñi léegi la mais bari na daga daan toog ak mag mu ne la sëñ Modou Lo daga na toog naa mu nettali nàngam bu ma musaana ñëw Mbàkke bu bu ñoom sëriñ Fàllu bu musaana ñëw fi moom dañ koy neexal naan ko bi ngay seeti ku tedd ki noo def doomi sëñ Tuubaa yi daan ko daan ko daan ko daan ko daan ko euh, ñëw di ko di ko neexal ngir mu wax leen fi mu am fi mu ne lii sëñ Modou Lo da sëñ Moussa Ka nettali sëñ Moussa Ka demul woon sëñ Modou laa ko moo ko moo moo ko nettali parce que gis nañ ci xeet yoo xamante ne man boo demee Gabon da nga fay gis ñu nit ñoo xam ni euh, daanaka duñu du ñu doon ñu am solo sëñ Moustapha

motax nga mu wax lako ko jalonke ak tandunke koñaajo ak balonte ak xasonke seigne Modou Lo dal di dal di fexe ba résister lool moy lu doy war ak bam ko fekke fam ko fek melokan mu fek sëriñ bi nga xamni attention bi seigne dagana di dem bobu sëriñ touba bu fekkontene am saman la ñu ne matna. yàlla jox na ko mboolem yool yi sëñ Moussa Ka ko wax ñi aji umra jaari ke rusuli nafa'ani nafihu fi limbal wéri bima bi yabutuni kullu wali legi wëli fofa bu ko yàlla joxe lépp ka mu ñëk gis mu bëgg ci dara xamoo amna na ñoo xamante ne xam seen dara fi fi ne yi ñuy netal ni lu rogalat la ci sëñ Modou Lo Dagana mais bu yowmal khiyamé ba sahabatu rusul dekk yonenti dekk mu mu joge ak ki garaatam bañ naan kii ban yonent la woon ñu naan moo ne du ci yonent yi de ñu naan kon kon kon kan la ci araab yi kan kii di ñëw ak martaba yi mu ànd làmbool te da li ko ko may lenn la muy bëgg gi nga waxoon ak it jóge fii dem ba Gabon hmm? jaxal la manding la dox ci gaaw romb Sierra Leone fanaan fa gaaw xëy ba long ba jàlli biri bi laaj sëriñ Touba weesu arab yi dox mën a ruwee jaari Grand Layo wàcc Grand Popo fanaan likar xam nga aka neex a nettali sëñ kosom sëriñ Muntaxa bi nu àndee gamoo dama ne dañu toog yaa ma ne ko Mbàkke mook sëñ xaadim ma ne ko Mbàkke xam lu ma la man li ma gën a tuusee ci yoon wi wax naa ko suñu ak sa sàmb mu naa mane ko fii munoo koo misaal nit ci di ko ko nettali rek ba mu xam ni fii nii la mel maam am na loo xam ne dem xool la man dama ne woon dafa waroon a bokk ci sart yoonu murit ni ngi nan le demal nga dal ba dal ba ba nopi ñun la jang wàcce nga kamil bi bind ko loolu ay sart la nga koy def bañ na la niwul samp keur bala nga samp keur dañ la wara wax jugul dem gabon seigne mut dagana gor pur borom jom parce que amna lo xamni jom akoy koy lele ma dégg fi sax ci ñi doon tukki naan barcelone barsak mooy maanaam damay dem Espagne baa faatu ci géej gi rek mbaa ma dee am na mhm. mais dama ne loolu ku ko waxati dangaa war a fay waa kër sëñ Modou Lo Dagana droit d'auteur <laughs> moom moo njëkk a wax ne gis sëñ Tuubaa mbaa ma faatu a nga dëgg de hmm? te nag attention de daan ko ca jàpp rek mais faatu woon na de <laughs> waaye sëñ Moustapha xanaa moo sëriñ bi bi mu nekkee ci géej gi uh-huh. ci ci ci loolu sëñ Moussa Ka ko man sa kanam man sa ginnaw lo wax fa diwan ñu ne waw wax len ñu natal xarnu bi tuwa bi wo wat cheikh sip mam cierno jité ko sëriñ bu so ci la bok mam cheikh Anta ñu ne nañ len wo convoquer len yobbu nañ seen serigne len nawul len ku ne ñun la ñibil seen kër wala ñu yobbu la lañ paré won mais biñ leen wooloo dañoo toog ba yàgg bi bi bi gouverneur ñëwee ne maa leen woolu woon rek yuuxu xaacu la def ci bureau bi ñëpp di dégg mu ne génn leen bi nu génnee ñaari mag di waxtaan loolu dégg nañ ci ci ci sëñ Mame Lamine Diop wax na ko ci wax mm-hmm. ñaari mag di waxtaan ba yàgg kenn ki daal ne waaw woo ay nit ba nu ñëw amoo loo leen di wax nga toog ba yàgg waxoo leen dara ne leen génn leen lu xew kenn ki daal ne ko man daal xawma lu xew waaye gis naa Serigne tubaab fañ ko nekk fañ ko teg mu jóge fa di wër taax mi xam naa ne tubaab bi bokk na ci li ko tiital Serigne tubaab mi mu gis muy wër taax ka mën a jóge Gabon ñëwaat Ndar régler problème mu murit yi bu sëñ lu Lo na duggee Afrique centrale war na koo mën a fekk ci ay musée yu ko takk dëgg la mu tekki ko dëgg la dëgg la hmm? te moom miin na takk de te Libreville lañ ko boole garab di marmar ndeysaan sëñ Maxtaar Mbàkke mu daru muxti yalla suñu borom doli leer neena fofu foofa bi laaj nañ ko ndax nu tak sey lolo mu ngi len matuko koy bëgg faat lolu lolu bokku na ci nga wax ko ko loy mujjé wax ak ndax bëgg nga gis nin lay faat tirailleurs yi taxaw kenn ku ne war sa fetal nga xamantene dañ koy daanel mu dañ koy dañ ko dañ koy dir da ko doomu aadama am juróom-ñaari fàddu kenn ku ne ne cër sàngam duma ko moy te muy loo jàng ci këyit mosoo ko moy hmm? gis nga li nu yor hmm. mooy mooy mooy mooy mooy mooy jamaa hmm. sëriñ Abdou mii ngeen tuddee bis bii aka koo yendu moom war na cee mën a deme noonu ndax boo gisee yenn sëti sëñ Tuubaa yi mais mënuñoo bañ a bëgg sëriñ bi koo xam ne yow bu sëñ bi desoon ci géej gi doo am ah sëñ Tuubaa bu desoon ci géej gi sëñ Abdou Lahad mii magi sëñ Suwaybu bu sax du am bu sëñ Abdou Lahad amul sëñ Suwaybu bu amul nu sëñ Samat di amee kooku maam mënut a génn sëriñ bi mënut a génn sëriñ bi kon sëñ Moustapha li mhm. euh, mbégte la mu ma am ci waxtan wi mhm. don ko sara rek waye mhm. kep ko xamni man ma mor amna droit ñaan sama moromi mourid ak sama mbokki talib képp koo xam ne bëgg nga sëñ Touba ba bu nelawoon mi ngi ci goré gi laqatu nga mëna dem wala bu la fi sëñ Mourlo daga na fekkon nga xol xamni ni lay réussiré dina na la kaynu and nga dem waaye nañ ko fekk ci bisam bii ci mbakke delloo ko njukkal. waaw. ci ama kasa si. waaw ci ama kasa si. moo demoon làmbar na ci ama waaw cest à xoolal gis nga foofu ngay wax ci kablapes. Serigne Touba mujjoon na amul suuf. parce que lambar na ga ko sëñ Mourlo daga na mujjoon a fekk sëñ Moustapha. Mhm. amul tefes. Mhm. daanaka géej gi day dafa dafa lekk mango ya fi ne bu ñu la ko wanee ñetti garab yi mango moo fa nekk hmm. mais bi mu ñëwee ci suufu beeñ si suuf si suuf si suuf si suuf si yaatu sëñ bi daa mujj di raayoo suuf dégg mu naan mu muy baddaa tiim di raayoo suuf so hmm. suuf soosu sax sëñ bi ram ramm na ko hmm. fu mu dem ak gën fu mu demul ku ko bëgg gën ku ko bëggul mhm. sëñ Modou Dagana yalla nañ ko yalla fayal ni nuy jàngalee daal mhm. diñu won ay pour Martin diñu won ay ay ay ay ay marque le self ak ñooñu waron nañu jël waxuma la sax sëñ Touba mais demuk sëñ Modou Lo Dagana itinéraire am mhm. dugal ko ci école yi nit ñi jàng ko xamni nit day fonk kilifam waye day am fulla day am jom tabarakallah jërëjëf euh, sëñ Mamor Mbaye ci euh, euh, jàngat bu am solo bi nga xamni yowit def nga ko ci muy lu am solo lu mënutoon a ñàkk xam naa dañuy profité rek sëñ daam élément sëñ Modou boobu boo ñu ko tegalee rek ñu xool ko daal di dellusiwaat nag ci deuxième partie bi tàggatoo pour yëkkati jotaay bi kon ñu ànd ak sëñ daam xoolu élément bi ñu wax yaa jumlatan qad sallaso bi dalalihim man lam yakun soodaan sépp dem safara soo deeluwu soodaan sépp dem safara nee na ba ma jooyee ba dal mu ni ma Modou ma ne ko dinaa dem dinaa dem waaye ñooñu di ma tontal gaal gi nee na boo bala dem nag siñee ñoom bu ma demee ba ndakaate fayu ma leen delloo si leen ma loolu yi la ñoom ba ñu demee ba ñu duggee ba dem nee na dem nañu ba ca kanam baax ba muy taxaw di taxaw ñu fa bagage yépp ba der beres ci nga bu téeréem tax sa maam di ko xol def xal ci gannaam di ko xol ba yag mun ko go feet ni tegg ci mbaggam mi dëgg dëgg ba ca ki ba mu ko ca tegg mu ko ca tegg ñepp ñëpp di sel di sel sa maam ngir sant ko ndax ay bi baax ba yag taxaw neena na ba ma duggé nak dëkk ba ñu jëkk jaar lay wax diw joxé na dangam diw joxé na dangam mi fi jaaré kenn ñi mu wër kenn bi mu dëppee ba xam ñëpp mi ngi ñibbisi nag ñëpp songa nañu gaal gi neena fi ma lal ñu difa jox bi mu yorub téréem ñu difa jox bi ma dem di liggéey sama liggéey ci biir gaal gi di ko defaral neena na ba ma dellusi fekk xaalis bi fees dell di jóge nee na saatu xaalis a ngi ci su ma xemee bëgg ko koy yettalee xalima nee na ma daa di egg su wàññi li ma war a fayee waa gaal gi ba mat ma dem ca biro ba fay leen ba mu mat ñu xotti kayit ma ma xotti sama kayit ma del si ñaa bi ma del see fekk naa mu di naa xalima gi di leen ko sëllëx madame yi di ko wër wër wër mu di leen xaalis bi ba saatu xaalis soosee ma xeemee moon sëll xaale nag ma ne am nga toog ba yàgg ma ne Amadou nee nga ana li woon fii ma ne ko ah, Mbacke li xalaat naa ko xalaatuma ko ndax yow Mbacke ku ma bëgg ku ma ku ma bokkal bokk na maag daje na maag moom ci bëgg ba mu des yow. nga gën noo bëgg yàlla mi nu ko bind mu ni ko ma da waxaat mu ni ko ku kuy bindeef dajana ma ak moom ci bëgg ba mu des yow nga gën maa bëgg yàlla mi nu boole bind hmm. Amadu loolu la ko xamal loolu la ko xamal mu ni ko Mbàkke ku reer ba nuppe jox la taalit wa boo amul barkeb sukk ca la it xam nga lañ doon reere ku reer wan fa jox la des wa aw des la ñuy wax moom daalit la ñuy wax boo amul barkeb sukk ca ndën la xam nga lañ doon reer daal lañ teel sama am dellu ca liggéeyam mu ne ndax xam moos du mu ne ko ñooñu day xaalis seen yàlla ba ma leen di sël la xaalis bi dañoo mel ni gone yooyu ñu jox buruy tabaski ma leen di sëlla xaalis bi dañoo mel ni gone yooyu ñu jox buruy tabaski hmm? nii la ko wax sama am dellu ca liggéeyam dëkk bu ne nag ñu joxe dëkk bu ne ba ñu agsi ndakaaru ba ñu agsee ndakaaru fifteen bi nag ku ko saamaam tàlla ne la jaay ma rek delloo jox ko ko li mu doon jënd delloo ko fifteen bi nee na ku ma tàllal ni la jaay ma nga jox ma li ma doon jënd delloo ma fifteen bi bañ agsi ndakaaru bañ agsi ndakaaru nee na ko Amadou mu ne ko barke mu ne ko ana 15 ba mu ne nii mu daal fa 15 ba jox ko ndakaaru sama maam jële 15 bi jox ko sëñ Touba ku la ko mën a laaj nee ko ndakaaru lu ko wat sama maam laaje 15 bi mu delloo ko sëñ ma loo daga na yorul 15 ba bindaloon na ko téere boo xam ne bii daa ni dolli maa bu yii ni ko ñaw ko takk nee na sama mbalaanum sér laa xotti ko ci ñaw xotti ca kii ko ko takk yaa jërëjëf sëñ daam ci euh, élément bu am solo boobu nga xam ni mu ngi ñuy fàttaliwaat bu baax jàmbar jooju di Cheikh loo dagg na mi nga xamante ni ni ko sëñ Mamar waxee léegi rek moom aw turam dootu fay waaye jëfam it yaakaar naa ni jëf jëf ju baax june marsi na ko roy waaye jëfam yaakaar naa ni ñi ko roy bëriwul euh, kon dañuy dellusiwaat rek ci sëñ Abo euh, ci première partie bi deuxième partie bi nga xam naa du du mën a gudd lu gàtt lay doon ndax waxtu bi xaw nañoo dab bu ko defee kenn ku nekk indi looy mottilee rek li nga njëkkoon wax ci première partie bi laataa ñuy yëkkati jotaay bi incha allah bisimilah. jërëjëf sëñ Moussa Mamour jërëjëf sëriñ Souhaïbou sëñ Fallou si Ahmadou Bamba jërëjëf euh, li wolof yi wax ni li duuf li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li waaye liñ fi jot a sotti nii ku am xel tey déglu da nga xam ni kii histoire am xajul ci ñaari waxtu waaye rawatina bo deglo sëñ son yu mi jangaru am sol yi mu ci def nga yegi ci ni kon ndekete lim doon def lépp beug rek ko ko waral te sëñ bi day wax ni surman tuhibbu wa in satat bika daru aw hala min dunihi shahlu aw haru la yamna annaka ba'dun min siyaratihi ay innal muhibba liman yahwaahu sawar nit ku nek ki nga beug faaw dang koy siyaré mo xam dem ga jafena wala yomb na waaye nit moom kim bëgg moom lu mu tar tar lu mu sori sori lum metti metti wërta dem wërta tee nga dem nemmi ji ko kon moom dem gi demoon yëpp ak bëgg ma ko yóbbee dañuy profité nag di nuyu suñu maam soxna maam Bousso Lo ne fii ci Kër Massar di doom ci suñu loo dagana bari na lu ñuy wax fii loo xam ni bokk na ci ñin ko toxalee moom moomu ci la bokk fii ci Kër Massar doomi sëñ Modou Lo Dagana soxna Mame Bousso Lo mooy am dinaa ko siyaare mooy am caatam barke borom Touba waaw waaye di nuyu it mbooleem kilifa yi ñu seetaan yëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax waaye euh, sëñ Modou Dagana bi nga xamee ni euh, sëñ Fallou leeral na ko jógee na ci tukki bi ba ñibbisi si géej gi donte am na lu des ndax waaye du fi xaj waaye bi mu ñibbisee fii ci réew mi ànd ak sëriñ bi ñibbisi maa ngi la koy wax léegi ngir moo demoon lambar na xamaa ay sachi waaye indi sëriñ Touba ci ama kasasi kon moom li doonoon yitteem mooy jëli sëriñ bi loolu nag warut jaaxal benn murit sëriñ Tuubaa ak demam lu jiitu muy dem dem gi xam na ko xam na ne denn dellusi waaye nag wér na ko ni jëmb dana ko fekk joo xam ne sababu ñibbisi bi ci saahir dana am fu mu jaar bokk na ci ñi ko yàlla jaar ci seen loxo mooy sëñ Modou Lo Dagana mi ci la bokk lii la yàlla dogal moo tax sëñ Abdou Khadir am na euh, kilifa yu masa wax ni leen ku sant yàlla war ngaa sant sëñ Modou Lo Dagan gannaaw bu ñu sant yàlla ba noppi ñu ne ko la ko waral mu ne bu ñu gisaatee sëñ Tuubaa ci réew mi ci jëmmam la ko yàlla jaaral te loolu la yàlla dogal bi nga xamee ni sëriñ bi ñibbisi na fii ba dallu ba tubaab yi waajaat ak moom ngir yóbbu ko gànnaar sëñ bi ko duma la fi bàyyi ci la ànd ak moom dem ba ga dem ba dem ba dem ba dagana mu sanc loo ko fa ñaari kër gii ci wàllu ndeyjoor gii ci wàllu càmmooñ ne ko buma ma kenn fekk ganar lu duñu def ci am sama digal ablé abata xal ko bindo légui nak fofé ca ganar fofé fofé ca dagana mu nekkon ma waral ña Ahmadu Lo mom dagana ko ku ma sa jigi fi ci rew mi bëgg dem ci sëriñ bi bo démé daf lay téye lan moy tektali ni sëriñ bee la woo ndax sëñ bi bam nekk bam nekké ganar nak dafa tégon ay sart ni ñi qualité mouride yi la bëgg ñu fekk ma fi ñu am xam-xam mokkal alxuraan maanaam sell ñii laa bëgg ñu fekk ma def naa yéen gëstukat yi di ngeen ci xam dara moo tax ku fa ma sa ñëw sëñ Modou Lo Dagana daan la téye natt sa alxuraan xool la ba xam yow ndax ñi sëriñ bi ñi sëriñ bi wax ñu fekk ko ban ba ban confirmation ngay ngay ngay wane bu wane ni sëñ bee la sëñ bi la jox ndigalu nga fekk ko bu fekkee ne am na mu door laa bàyyi su amut mu wàññi la bari na loolu ñu fa wàññi nag xam nañ ci ay tur yu bari waaye du jar tudd mm-hmm. la nekk ba fa lañ ko joxe soxna soxna Faati Mbóoj mii doomi ah, Ibba Aaya Mbóoj moo jur taawam bu góor ginnaaw géej gi muy sëriñ Seex moom sëñ Modou Lo Dagana di way jur sëñ Xaadim Lo ak sëñ Sube ak sëñ Moustapha sama way jur ñu ngi leen di siyaari ñoom ñëpp sëñ Seex moomu dañ koo teg ci gaalu loo ca jéggil ko géej dex gi mu dem sëriñ bi tuddee ko tuddee ko boppam ñu dellee si ko moom sañ Cheikh Lo moom fukki at ak juróom yi suñ Tuubaa nekk nekk njaarim yëpp ci keppaaram la ne sëñ bee ko téyel boppam yaral ko boppam lu ne ci moom sëñ bee ko def waaye gànnaar googu la fa xew lépp maam dagane googu la fa xew lépp di su ko mën a wax na xaju fi waaye ci gàttal foofee la sëñ la nekk la nekk la nekk ba sëriñ bi jógee gànn gànnaar di ñibbisi jël ko indaale ci réew mi bi mu ñëwee ba njaarim mu sampal ko kër mu ne fa mu di ko woo bu ko yittewoo waaye nag li nga wax léegi sëñ Moussa Ka bari lu mu bind ci histoire bi loo xam ne sëñ Modou Dagana la ko toxal ci géej gi waaye nag sëñ Moussa Ka nee na sëñ Modou Dagana su da daan wax ak man mu yàgg mu ne Moussa Ka am na lool kenn du ko wax ndax sëriñ bi wax na ma ci maa yomba ni ma Ahmadou fii de am am na fi lool xam nga ko ci man bis boo ko nettalee yomul xeyaam danaa la ko topp moo tax fi mu toll nii nii waa na ngay dégg ñun la ci géej gi sëñ Modou Dagana nee na doo ko dégg te loolu nag mbiru mbir mu yéeme la moo xam ne du feeñ fii li nga wax léegi yomal xeyaam lañ koy xam bi nga xamee ni nekk na njaareem dema dema dem ba yàgg bi jumaay njaareem ji noppee sëriñ bi fal sëñ Afiya Mbàkke rakkam mu imaam dafa woo sëñ Modou Lo Dagana ni ko dama bëgg nga wutal kër sëñ bi sëñ Modou ko jox naa ko sama kër sëñ bi joxe ndigal ngir mu sanc dëkk bale ca euh, Dagana ca ca kër mbukki boo jógee Kawlax jëm mbir kilaan kër mbukki ngay njëkkoy boo wàccee kër mbukki dox jëm Dagana mu duppee ko Dagana gële ba te ñu naan Ahmadu Lo mu Dagana ak yi ko jiitu yëpp fu sëñ bi nekk rek ci réew mi mu ànd ak moom waaye nag li nga wax lu am solo géej gi kenn mënu koo tudd dem ak dikk te tuddoo sëñ Modou Lo Daga ndax jëf jii mu fi jëf bu ko keneen jëf bu ko jëfoon faw foo tollu dégg aw sëñ Tuubaa seexal na nit ci ay weer seexal na nit ci at bis seexal na nit ci ay at yu néew seexal na nit ci waxtu wu ne defar na lu ne waaye sëñ Tuubaa jaral la fii bi mu demee ci géej gi nag néewul bu ma fa kenn fekk kon coobareem la demee ci géej gi kon moom sëñ Modou na li mu defal sëñ Tuubaa lépp dafa coobarewu def ko ku ne mënoon naa coobarewu def ko waaye lii nag xusuusiyee moom la ko yàlla jagle jagleem la day dellu ci li sëñ bi waxoon ni yaquudu lil baaxil karimun nuqaba wala karimun nujaba wa bi yu baahihim xasisan xajaba yàlla day mi aji des tey aji tedd wamatal na ma ay tànneef te ci yooyu day ci sa ci sama jëmm ci sama barke lañuy ñuy puukare waaye la ñuy tedd man Seexul Xadiim mu doon ko xam ne moom kenn xamu ko kon dañuy joxe kàddu gi bu ko defee sëñ Fallou ñëw ñu mën a eh, kii jotaay bi incha allah. xam naa xanaa xanaa xanaa kàddu yi cant. Mhm. ak gër ak ak kàddu yi ngërëm. Mhm. lii dañ dafa doon lu ñu yàgg bëgg xëy na mm, li suñ borom di door dogal la. Mhm. waaye dañ ci santaat Seexul Xadiim ndax yàggees naa dégg ñuy wax naan sëñ mu loo dagana du ku ne xam ndax histoire am ndax dafa ña waxoon sëñ bi nag ne ko loo ma mën a loo ma bëgg a may. loo ma bëgg defal dencal ma ko bayamal xaam soxlu ma adduna dara moo tax waa kër ma amuñu doo leen dégg ci dara kër sëñ ma loo daan doo leen dégg ci dara benn yëngu-yëngu ay ay aalim lañu waaye ay aabid lañu ñi ci gën a ndaw ku mel ni sëñ bii ma toogal daara alxuraan la dafay jàngale ak ñeneen ak ñeneen ci kër gi nag man mi di wax a yow ci laa bokk léegi nag loolu lépp mhm. maanaam euh, lii lépp dañ ci ca dañ ci sant waaye nag ñu ci sant sëñ Ousmane ndax bis bii moom moo ko wootee te dara taxul mu woote ko lu dul fàttali ko ak ñaanal si lu rafet sëñ Abou am na am na ku dugg ci kii bi hmm. jël ko salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ku baax kooku euh, man la Cheikh Lo Sëriñ Xaadim ñu ngi lay siyaar Cheikh Lo moom Sëriñ Xaadim ngi lay nuyu bu baax te di la siyaar ñu ngi delloo nuyoo bi di leen hmm. sant di gërëm hmm. ci émission bu màgg bi ngeen def. Mhm. defal ko suñu maam suñu mëtloo dagara. Mhm, di jàmbaar yoonu murit di taalibu Sëriñ Tuubaa bu wér. Mhm. Euh, di rafetlu émission bi nag wax jiñ ci dégg yëpp ak jiñ si taataane te lépp nekk njariñ di sant sëñ Abo moom ak sëñ Fallou moom. Euh, di wax nag kàddu euh, sëñ Moustapha mu sëñ suba loo ca Italie mhm. euh, ñu ciy woo nag bis bi nga xamante ni sëñ Ousmane moom la dëgmal nga xam ne da koo def ngir jëmmal suñ maam jooju ndax nit ñi gën a xam liggéeyam ba mën cee jariñu mhm. ñu ciy woo bépp koo xamante ni jullit nga di taalibe murit mhm. bokk ci ndaam mu ngi lay woo ci bis bi euh, fas yéene ko ànd sëñ Ousmane Lo ak euh, ñooñu mu ànd sëñ aboloo ak sëñ Abdoulou mm-hmm. màggal ko te Mbàkke ak ñëpp jëlee ci njariñ incha allahu rabbi incha allah kon na mm-hmm. leen leer na rek danañ ci ànd ak ñoom mm-hmm. ci lépp loo xam ne mën nañ ko xam ko te mu nekk loo xam ne njariñ lay doon ci bis bi daal di ci woo ñëpp daal dëgg la leen sant di leen gërëm jërëjëf yàgg si ligne bi dëgg la ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm tubaarkàlla jërëjëf waaw mm-hmm. sëñ Cheikh Lo waaw maa ngi suñu Ousmane Lo mm-hmm. di suñu mag ñun ñëpp dëgg la ñu ñëwee këram la ñu daal fa leen jógee ñëw fii mm-hmm. ñu ngi koy sant nag ndax gis nañ ab taxawaayam ci lépp loo xam ne dafa jëm si suñu loo dagana di ko ñaanal suñu borom dolli ay xéem te taxawu ko di di ko ñaanal suñu kilifa yi waaye di jaajëfal suñu maam moo rek suñu Moussa di jaajëfal ñëpp daal bàyyiwuñ kenn jërë ngeen jëf joxal ma sëñ Fallou yaakaar naa dégg si Abo li mu wax yow it xam naa say kàddu yooyu dolli rek ci li nga xamante ni moom nga njëkkoon a tàmbali ci waxtaan wi euh, bu ko defee door a tàggatoo ñu ñëw ci suñu sooy bu sëñ Moustapha ñun liñ ciy dolli dañuy wax ne sëñ Abo lim ne li li duuf ci nag wi xaajandoowul ci cin li képp koo xam ne li ñu li ñu li ñu li ñu guux ci sëñ Modou Lo Dagana bëgg nga buñ koy wax nga fekk ko mhm. ñoo ngi lay la le 18 waaye xajut fii ah, dëgg la fas nañ ko yéene waxtaane nag ba àdduna sépp xam ko waaw waaye nag duñ ci so yokk luñ ci wàññ dañ koy teg ci xam-xam rek dëgg la sëñ Modou Lo bu ñu la waxee lii mu def te waxuñ leen ne sànci nay dëkk. te ngay nit kuy gëstu histoire da nga naan am na lu des ci moom. waaye mag ñi ni ñu goree ay àll sànci dëkk. noonu la goree ay àll sànci ay dëkk. Euh, sànci na dëkk bu ñuy wax gori mbànd gas fa ab teen. bay wëñ ci njëkk wëgg dafa faatu ndax ndox ma wex. mu ne mu xas-xas loog ay mbokkam ne bis bi bu ëyee bu delsee ndox mi buñ ci wëggatee lañ ciy wëgg bu ko naanee bu ko dara naanee du faatu. daa di tànq daa di yónnee ci sëñ Tubaa ci njaareem am na ñu ne sëñ Mor Sanma loo la yónni am ñu am ñu ne euh, sëñ ma Laamin Fay la yónni waaye lu mu ci mën a doon mu yónni kenn ci ay taalibeem mm-hmm. wax ko ko sëñ Tubaa ñaan ci am ndox jox ko ko kooku ba mu dikkee jox ko dafa ubbi teen ba sotti ko ca ndax xam na pas-pasam ci sëñ Tubaa bi mu dikkee mu ne ko ana loo def mu ne ko lam ma joxoon yëpp naa ko ca teen ba mu ne ko ana lu tax joxoo ma ko mu ne mu ne ko damaa xam sa pas-pas ci moom nga xas-xas loog say bokk su ma ko joxee nga naan ko te la nga waxoon lay <laughs> bu ko ko joxoon mu naan looloo tax ma def ko ca teen la teen boobu ba tey sëñ Mahmadan mu ma Masamba mu sa naan lu dul ndox moom ba tey mi ngi gori mbànd teen boobu ba tey mi ngi gori mbànd moo gën a neex ci ndox yi ñuy jëfandikoo gori na fu mu nekkee gori mbànd mi ngi ci ginnaaw kër mbukki Saalum mbir ki laan euh, soriwut foofu ah, soriwut foofu waaw soriwut naawel soriwut naawel baax na kon moom nit la koo xam ne da nga naan lépp loo xam ne nit ku jàmbaare def na ko moom da koo def. Mm-hmm. Ah, sanc dëkk caayaako sanc na dëkk bu ñuy wax caayaako ca boori ca boori Daarul Muxti. Mm-hmm. Ah, sanc na it dëkk bu ñuy wax kër mbukki te fu mu mës a rek gas na fa teen këram gii ci Mbàkke ba tey gas na fi ab teen. Mm-hmm. sëñ loo Lo Dagana dafa doon jàmbaar joo xam ne egg na ci yàlla ba bu toogee day jël loxoom fasta ci boppam. di wax laa ilaaha illallah moom ku mu mës a waxal aadoom la lay wax. mësoo dem këram mukk te fekkoo fa xàbb goo xam ne daf ko duyal njanaaw yu ngir ñu di ca naan sëñ Masamba nee na ku ànd ak sëñ Mor Lo Dagana bis bu delsi ca dawoo mën ngaa solo soldaar ndax jàmbaar la woon ci góor yàlla yi la bokkoon musaana toog lu mu daan woowee ku tedd ki cay woon am na Ahmadou Mbacke sama sang ba waaw sama sang ba Ahmadou Mbacke sama sëñ Tuubaa da ko bindaloon téere ne ko mm-hmm. malaayka yi ak ak ak wàlli yu yi ngay fiiroon téere bii ma la takkal boo ko takku doo mucc ci ñoom mu ëw ko ëw ko dindi mbalaanam ëw ko takk ko ci baatam bi muy faatu la dénk sëñ Seexul Abtaab ne ko téere bii ku ko tekki du la raw dañ ko ko kon bis bii dañ koo laytaayee màggal gi nga xam ne moom la ko sëñ Tubaa joxoon ca Gabon ma di ko màggal bis bii ñoo ngi ciy koo xam ne sëñ Tubaa ñor na la bis la boo xam ne dañ ziyaare bu baax sëñ maam daam loo mi nga xam ne moo jiite lajnatu saxaafiya surtout sëñ mi loo daga ne moo leen jiite mboolem lu yëngu ci xam-xam moom lañ fi teewal moom soxna Taahira mi doon wax nga xam ne daa fekkee jamono sëñ mi loo mm-hmm. dëgg la kon ñoo ngi ciy woo di sant ñëpp di mhm. gërëm ñëpp lu ci mhm. jub dañoo bëggoon mu gën a jub la lu ci dëng it dañoo bëggoon mu gën a jub rek wa maa tawfiiqi illaa billaah wa salaamun alaa jërëjëf euh, sëñ Fallou jërëjëf sëñ Abo xam naa damay delsi ci sëñ Chouaïbou bu rek sëñ Mamour sëñ Fallou dafa wax lu am solo wax nañ ni sëñ bi mas na am ganug naar goo xam ne da ko yabal ci kër maam Cheikh Ibra moo xam lam ci jublu ñu di ko berndeel jox àddiya far naar ba tawat tawat dal ko fa euh, tawat ji xaw a mu yonne ci sëñ bi niko nar bi mu fi yabalon kat dafa dafa tawat sëñ bi yonne ci mam Cheikh Ibra ak ñaan loo xamanteni lu melni am dox la ni nako jox nar bi way wax nañ ni da te ndox mi ba ci yag mu yegg suuf jublu penku nan ko bu deppo keul bi daal nar bi na wér wala mu sedd bi def <laughs> waaye kooku bu ko joxon ndox mi bu soob yalla suñu wóor da kay daal waaw ko sëñ soñ bu ñu bàyyi kaddu kaddu yi ngi ci teg rek inshallah wa kan jere jeuf jërëjëf mustafa jere jeuf sëñ Mamour Mbaye ci waxtaan bu am solo bi. Mm-hmm. ni nga ko waxee ci euh, dafa am nag loo loo loo wax loo xam ne dama dama ko bàyyi xel moo tax ma bëgg cee mm-hmm. mooy sëñ bi dañ koo teel a indi ci géew bi. waaw dañ koo teel a ci géew waaye. Mm-hmm. mboolem ku ñuy tudd fii rek. kennam kii rek doyen na mu jàkkaarloo. dëgg la dëgg la kennam kii rek mu doyen mu jàkkaarloo yow. waxuma nag ñeneen ñeneenam ñu bari ñi. ñi kenn mënta lim. xam ne kenn ku ci ne def na ci yow loo xam ne mën nga jamono. suñ mënoon dara nag mooy grand combat nga njëkk koo tëgg kenn du ko def grand combat dañ koy mujj tëgg. Uh-huh. looloo tax nag. Hmm. Euh, ku lay diingatit xam na ne xel na yaa ko man ah, nawet gay waral ñuy dendandoo. waaye noonu la dëgg la ku not ku not gaynde not mu fa <laughs> segg ak nàq do ñay mu ñëw. du coowoo ki bay noppal te yàlla gis na la. su ko defee sëñ Madloo uh-huh. liñ ciy dolli lu lu néew rek lay doon. mooy de delloo yéemaat yàlla ci jëmmam ji. ak ci jëfëm ci ndax dañuy wax ne al afxaalu hiya hiya allati tuakkidu sidqul ma'abba fal kalamu amal kalamu fal jamihu falaasifa wala fal jamihu yatakallamu gis nga bu ñuy natt dëgg dëgg dëgg dëgg ak dëggal ci ciofel jëf rek moko mëna mën prouver bu ci dara su lu dul wax nit ñëpp ay philosophe lañ ku nekk mën na wax ba ne xaaw waaye du def lenn loo mën a teg sëñ Mat Lo nag dafa def loo xam ne nii. waaw daa jëf de. moo ko mas def. te amaatu ci ñaare. allahuma yàlla na ko yàlla na nu yàlla tas ci barkeem. sëñ Mat loo mooy ki ëpp muur ci sëñ Tuba. mooy ki ëpp muur ci sëñ Tuba. xarit uri dara wal mujahidin fi sabilillahi alxuraan. waaw ña toogoon ba ñu ñëw indi leen. bokku ñoo ngi ñu jëli. moom nag dafa jëli cëram jëlaale boroo kii séddale cëri li tax ma ne moo ëpp muur ci sëñ bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Sàmbaan la egg juróom-ñett ci weeru Sàmbaan la egg ci la jàkkaarloog sëriñ bi moom la fi jóge moom la egg ci jàkkaar sëriñ bi li ma bëgg rek muy istiqbaalu ramadaan bi muy egsi ci sëriñ bi booba ramadaan a ngi ñëw ci sëñ bi weeru koor muy weer wi sëñ bi gënoon fonk te sëriñ bi neen ne na mbooleem juróom-ñaari at yi ma woor ci àll bi maag malaul ahla ñoo ko bokk warandoo kon sëñ Madou dafa dem sëñ Tuubaa teg ko bët te ñaareelu fan ba ñu um mu ànd ak malaul ahla warandoo ak ñoom nga wax léegi dafa dafa leer mooy téereem boobu ko sëñ bi takkaloon ne ko malaaka yi ngay fiiral ak yooyu sëñ Madou Lo foofu la njëkk a gisee malaaka yi ndax moo ñoom ak sëriñ ba fa bokkoon nekk xam nga sëriñ bi tooñ gu metti googu ko tubaab yi defoon ca seen angaar boobu nga xam ne dañoo xëy rek mere ko mhm. mere ko daal di woo soldaar yi ñu wër ko ku tux buusu ko ko mhm. ku sox sàngara buusu ko ko mhm. nga xam ne bu gisee luy ñëw day gaaw buuf ci cabine bi nee na ñu wéy ca loolu wéy ca loolu ba doyatu leen nee na boole nañ ñaari góor ci sama kanam ñuy sëy ngir naqaral ko oh. ca fajaru bis boobee ba ma génnee di dem ca àll ba ñu topp ma fa la sunu borom yebale waa ahlu badrin ñu wàcc ba tiim leen ñu ne tekk taxaw di yet yet moo tax mu ne suhuru rasulullahi lii baana jahratan wa sunnatuhu lgarraawu xaaji wa matlabi mu ne keroog feeñ gi àndandoo feeñ gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ sama kanam. xaritam ba. lii alwaasiya wala asuuda. basarani lwaahidu. basarani lwaahidu. basarani basarani llahu bi anni waahidu min ahli badrin. xaaf minni jaahidu. min ahli badrin. maanahaani keroog badar. ñuy saafante ñëpp rang dafi gawar. nee keroog ànd nañu ak Jibril. mu war ca kaw xay suum tey jëmbir. nee na keroog tuuti badar ja dekki borom grade sax ñoko tek demal sëñ bi maa ngi jéglu yéen ma yëngal li nak sëñ Modou Lo Dagana ëpp na fii mosul saxaat ne dañu wara a da ngeen waroon yokkaat temps bi sëñ bi demal mu ne saxuuru rasulullahi lii baana jaxratan mu ne yonent bi mom ñëw gi mu ñëw dara laqku ci nga xamné jëmmal jëmmam la doxee ba egsi nee na loolu moom maag ñi ma jàkkaarloo di wax ak ñom ñoy am non la ma leer suhuuru sihaabil muntaqa lii yazuuna nii wa ya wa yamau ila al aadaai min taafus nee na wattandiku gi ma tubaab yi mujj di wattandiku nee na gis gi ñu gis keroog sihaab sihaabu rasulullahi moo ko waral léegi sëñ Modou li ma ne moo ëpp muur ci sëñ bi da xool sëñ Touba benn atu maa yombaam sëriñ bi loolu dara mënu koo jënd ci àdduna meetaayam ba xëy ba gi ko yàlla mayoon farloom nga ci jaamu yàlla takk gi mu daan takk ndigam mm-hmm. daawam ju bari ja xalimaam yi nga xam ne da ko daan jal mu mel na sayu mat كريت ميغا خامن بو فند موسى نتك فلي جيلات بنين لولو كو مانا نيك موم نياري ات يين نيار اك يالا دونغ ديكو ليغيل امول كين كو يالا ماي لو سي كاو سوسيو نو فو سيرن توبا خيي تي گيدجي خامن كو تي سيرن بي بوبا نيهو تا نيكال دي سيرن توبا بوبا دوما ادما اپون نموي نيك موم تي لول ليپ نك سيرن متلو مو امون توفيخي بك نيغو سيرن بي سيرن متلو داغنا نياري ات يو خامن ني ci wéetaayam bu métti boobu la ko la ko wéet xam nga wéetaayam boobu li ñu sëriñ bi nettali ci ay tumuraanke dafa bari damaa jële la godd yi ñuy wax damaa jële la jaan yi damaa jële la margi ndax sëñ tubaa nee na at mi gën a neex ci sama weeri koor yi géej gi mooy at ma ma fa njëkk am moo gën a neex bu xel jàpp na na gën a neex nga mooy daan na lekk bu suur nee na at moomee laa mas a am benn xaal boo xam ne nii bañ nee weer wi teru na dama koo dagg ci kaw li ñuy wax opéré su doog jotee ma sëpp sama ñaari baaraam ubaab ba doog jotaat nee na yeneen juróom benn weeri koor yi ma fa fekkaat yëpp damay xaar bu doog jotee ma dem ba ca taatu dex gi ñax mu nooyee may moom ma budd ca la ca tooy ma yéey ko yàbbiwaat ko noonu laa egg mettit woowu nag ku mën a ñëw fekk si ko indaale woo ndey mhm. indaale woo bàyyi nekk fa ak moom ñaari at mhm. ko moo tax sëñ Tuubaa nee na ko li nga xam ci man foofee mhm. soo ko waxee yow man xiyaam ma topp la ko la ma xam ci sëñ bi moom moom xam te jàpp naa nit euh, ci xiste yaakaar naa ginnaaw bi mu fi jógee am na ñu ko gis sëñ ma loolu laaj ko nu foofa def am na ci xiste boo xam ne moom leer li ma ci bëgg a wax rek mooy demal sëñ Madlo. dafay ku doy waar. kii kii suñ Touba du ko suñ Touba du ko duy ba mu fees. bàyyi na fi dem que ak sëñ Touba yow wala xëyam. dellusiwaat fii. nit laal ko mbirum foofa nu mu demee. mu ne ko waaw foofa dama ngay dox. ma ngay dox ma ngay dox. murid yaa nga fa waaye miir bu njoolee njoolee njoolee fa nekk. benn buntu la am seex rafaale ci taxaw. ku ñëw benn baat la lay laaj mooy noo noo def ak sëñ Touba. su seen diggantee na na ñax nga jàll bu dul loolu nga xaar ba yàlla sa sottal buntu bi dëgg la dëgg la tubaarkàlla dama ki ko xamal maa yomba mm-hmm. xamal ko dëgg ne gi ci yoonu gamaar mm-hmm. moo ko bàyyi foofee ci mbirum sëñ Tuubaa parce que jërëjëf sëñ Soy bu ma euh, sëñ Ahmadou Mbuub euh, bu mm-hmm. xam naa ne daal maa ngi noos plateau bu ni mel uh-huh.

ak soxnaam kon ñoo ngi ñoo ngi ko ciy woo. la ko wax ñoo ngi ko ciy woo bu baax. di ci woo son représentant ca bërëb ba nga xam ni fa lañ koy amale muy Mbàkke euh, le préfet buñ ca noppee di ca woo euh, le maire Abdou Mbàkke Ndaw ndax nit bërëb boo fa demee muy localité bu mel noonu war nga caa woo ka nga xam ni moo fa représenté collectivité locale yëpp mhm. ku di ca woo tamit euh, euh, le directeur Galoba mi nga xam ni ci jamono ji nga xam ni mooy tête de liste Benno Bokk Yaakaar di ca woo itam euh, Moustapha Diop kenn ku ci ne xam na ni dëkkandoo la dëkkandoo la ca ca ca ca ca ca ca Mbàkke di di mbokk yitam di ca woo tamit Abdoulahat Lo wante nag bërëb bi nga xam ni moom la ñu nekk muy Touba TV. Mhm. jàmbaari Serigne Touba nekk fi. muy jëwrin Mbàkke yu fay. kenn ku ci ne xam na taxawaayam. Euh, jàppandal gi nga xam ni moom lañu jàppandal palaato bu ni mel. ngir moom itam yitte joo xam ni. am na ko mhm. jëmale ci mag ñi. dëgg la mu jaare la ko nag ci sëriñ suñu waajur. Mhm. sëriñ Cheikh Awa Balla dëgg la Samb. ba tax plateau kenn ku ci ne xam na ab dayoom. plateau kenn ku ne xam na euh, li mu war a coûter mm-hmm. wante lépp sëriñ Mbàkke yu jàppandalal nañu ko mm-hmm. ba tax ci diir bu gàtt ñu mën a taxawal lii mm-hmm. di ca woo tamit euh, Mafali Njaay bokk ci liste bokk gis-gis wante di ci woo euh, le président Moustapha Cissé ca gox boobu kon daal bis bi buñ doon toog fi yëpp di daanaka mën nañ rek woo nañ képp koo xam ni mhm. yaa ngi ñuy déglu di ñu bàyyi xel mhm. wante woo nañ képp koo xam ne yaa ngi bëgg jariñu mhm. ci avant goût bi nga xam ne joxe nañ ko fii ñun avant goût la rek laataa ñuy jëm ca bis ba ca Mbàkke kon ku ca gën a bëgg lu lu gën a dugg ca biir ba gën a juux ñoo ngi la cee woo dëgg la donc asalaamaaleykum wa wante nag euh, maa ngi jégglu euh, daa am ku njëkk a dugg léegi ci téléphone bi ñu koy wax euh, Papa Mbaye muy transitaire bu mag mm-hmm. moom mu topp ndondal waajuram mm-hmm. Baye Jaaja ca Kébémer mm-hmm. kenn ku ci ne xam na taxawaayam ca ndaam rawatina ci buntam sëriñ Xaadim màggalu Tuubaa kenn ku ci ne gis na na muy àndeek euh, ay mbokkam taxaw taxawaay bu wér boobu ak ànd gi nga xam ni moom la ànd ak sëriñ Ousmane Lo fii ci Ndakaaru man mii nga xam ni saa su ne sama doomu ndey la duñu tàqalikoo saa su ne mm-hmm. ak tiofel ak mm-hmm. bëgg gi nga xamni mom la am bu baaxa baaxa baax ci ndam mm-hmm. kon momi gis nañ taxawayam ci wàccaay gi yëpp tabarakallah jërëjëf jërëjëf jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu doon top ci plateau spécial bi nga xamni tay ji mom lañ doon def jagleel ko serigne Modou Lo Dagana xamna ni insha allah rabbi bala jang kat bi yëkëti xasida muy serigne Abdou cham dañuy bayyi serigne mamour rek mu tagoto tay nak serigne mamour tey moom bu ngeen gisee nii gis ne sëñ daama ma solal tey moom sëñ daam Guèye Murit Sadix mel ne ci télé bi moom ma solal tey plateau bi. kon yaakaar naa mbooleem euh, ñaw yu ñaw yi ñu fi mas a sol rek. bu tey bi wecc na la na la solal na la solal euh, lu mel ni yeneen yi mais daal euh, muy son yi bu muy bàyyilaat moom maa ko moom. ah waaw loolu na ko ñëpp xam. kon ma ma bàyyi la nga tàggatoo jàngataat rek. Mm-hmm. mooy lii kii wax. Mm-hmm. wax nañ ni sëñ Fallou Fall mu maam Cheikh ma Fall. Mm-hmm. wax nañ ni ñaari at sax defu ko sëñ Touba Gabon moo daan taal taal bi mhm. waaye ati sëñ Touba yu mujj la mhm. nga xam ne danaan taal jalambaan yi rek ngir sëñ bi di ci mën a niitu di bind mhm. te yàggu fa diir bu gàtt la ko def wax nañ ni am na bés ci céyeen mu am bi bu mu jàppanteel fekkoon na sax sëñ bi daa fatu dugg xalwa waaye sëñ Touba daa toog yàgg na tëll génn ne ana fallu faal kan jappante ak mom ba ahlu badrin weur sama keur gi ñu ne ko diw mu ne nako tuubal gaaw ndax ahlu badrin lin ma miine lañ ko miine kon lima ma ci sa wax gi seigne Mourlo Dagana mom bo ne am ciir bo xamni ci seigne Touba lima ma wat dal amna am na ndab yo xam ne di duyel seigne bi seigne Mourlo ngi top te lol nak mu ci weton la man dal limay wax moy len mhm. bis bu buñ ko de bis bu melni buñ ko de defal ko tol nii mhm. nun murid yep nun dem mbàkke wut mhm. dem tasu ca barket dox bim doxé won fi dem ba Gabon séti sëriñ bi yalla nu fi yalla may jam ak tawfiq ci barke Serigne Touba alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mamor sëñ Cheikh balle Balla Samb nak mi nga xamanteni ni moy euh, suñu kilifa. sëñ Cheikh Balla Samb mi ngi top jotay bi sëñ Mamor nena mi ngi siyaare mboolem ñu nekk ci ci plateau bi mi ngi doon top waxtaan wi nee daanel nga ko ci sa biir waxtaan. moom toujours ma daal seetla bis ben waaw kon señ sëñ Sañ waaw ben ay cheikh murit lo waaw. yu may jëme ci señ Ousmane Lo. waaw mi nga xam mo mo mo mo initier bis bi. Mhm. di di di goné mhm. di di nekk ku am gis-gis. Mhm. tay jambar te ta jappalé lool. deug la. Euh, sama teewaay fii li ko waral moy dañu bokk nekk ci jenn daara muy daara señ Saliou. di daru alimul xabir Pastef bi la ma am bi muy nekk gone gu ndaw a ndaw ndaw Pastef bii la màggaale dëgg la bis bu mel ni it yàlla mën na koo wërsëgal ci maamam mu def ko ndax waxi wàllu yu dafa foor sëñ Saaliwu loo ngi nii toog ñoom ñaar ñoo fa bokkoon nekk sëñ Saaliwu di leen daan woo ne leen na ngeen xam kër gii yéen fi wara nek nekk jëwriñ ndax ne seen mam ànd woon ak seigne touba dëgg la loolu damaa jàpp ne baat boobu man naa waral yàlla wërsëgale ko. bis bii feeñe ci moom. muy baatu sëñ Sall boobu yàlla na ko yàlla gudd. te wéral ko kon ñu bàyyi sëñ. Euh, waaw sunu way jur. bu Lamp Fall FM. na nee na waxtaan neex na ko ba tey. Mhm. waaye moom rek. la. bu Lamp Fall moom it noo koy. waaw Murid Saadix la waaw. bàyyi nongaloo borom Serigne Touba nee na. waaw kon euh, sëñ Ndonga Thiam.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 لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا زمدي لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا زمدي لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا زمدي مدلنا الإسلام والكفر مها وبنصيحتي لكل زمان هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براءه بديء من خير جمال وسانه قدوس عن خير كمال كون النبي المنتقى محمدي خير الورى مختار هند سمدي كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار هند سمدي مجل كسيخ أحمد الودي مجل nañ دمات موتخ نوت مقل moo ta dugg di am lu ñaw ba ci wetam daldi taxaw ne ka wutil sëriñ moo gën ci yow xisa budul bi day ba mu xëyee la daa dem fekki sëriñ ba lambiram moo gën ci ñun te gëne koom seexul xadim demul ba ñoo mu ab saat baat mamat di jaar ci ay àll xat di seeti sëriñ bay taxamat bu ñuy yërëm te naxuñu moo tax Cheikh Moussa Ka nga naan ko ku weddi laaj Cheikh Modou Lo moom dagana bam laa gisee Cheikh Bamba booba sori na ku weddi laaj Cheikh Modou Lo moom dagana bam laa gisee Seex Bamba booba sori na xëye na kokki guy bisub talaata namu ca géej ga bañu na xadmaata ba weer wa del see ca dewe nag bis ba la soga seru bamba ngir pas-pas ba talaata jay ñati fan ak juróom ñaar ci weeru saxbaan lañu jikki ñoom ñaar neena dem aljana bam saafuwanteeg bamba ajum fajuna biibis la ahmadullah Lo di magal waju ko magal mag jarna magal ñu teg juroom ñet la fi sax bani waju ko magal mag fi diwani li lee nga bokon ci saawu kor Cheikh Modou Lo Dagana soo ma koo jor motax Cheikh Moussa Ka nga nan ko mu jaari Banjul jaari walu sigi cior jaari karaban way siin di bor jaxal mandige la dem gox ndaw romb sir liang fan fa gaaw xëyee fa sir liang ba jall bi rabbi laaj fa serigne touba mu weso xara bi doxna man ro jaari farkan lo wacc kar ma mu fran kër kan lo woo xëyee bulaama romb kabdil balma di seen denuk tebuk tana lambal ma xëyee fa romb kam run ñoñ kurman ak timineeki bu yana ko sodan mu romb leen tefesu bi sa wali laaj fa serigne touba ñaan ko baafali mu way karam basa ba wo buusa tefesu wiiso abidja wursuusa dox na akara tefesu romb wiida laaj fa Seex Bamba ñu naa waxiida mu war ca gaal ya jalli jëm likoosa cere ma ak sa se kibsoosa kooka tabax taaxi Sëriñ Tuubaa ya fa daaru man naan moo rawan ca gaaya mu daal di waango woy yomba foofe